c'est 778 32 03. waaye dimbali leen leen waaye lii leen. am na ñu mënul fekkee. am na ñu mënul fekkee. ñu ngi sóobu di leen jàppale. xam nga lii baaxul dañu waroon seet gaal gi. lii ba wóor na ba espoir ci géej gi nag. xoolal xoolal xoolal. ñii déglu bi ñii déglu bi. waa Sénégal man na seen frère Cheikh Anne tey sama vidéo bi nag vidéo bu am gàcce la dama am gàcce gàcce goo xam ne fi mu commencé xaw ma ko xaw ma fan la yem dama seetaan benn vidéo sànq boo xamante ni ay doomu sénégalais yu jóge Sénégal lu yàgg am geddaaye seen réew jëm Europe. jëm si dëkk tubaab yi muy Europe muy feneen ak feneen gàcce monte weesu dëkk bi nga dëkk nga nga jógee ko fi dëkk bi nga dëkk cosaanoo fi nga xam ne fi nga war a tekkee fi nga war a amee teraanga fi nga war a dimbalee sa njaboot fi nga war a defee lépp nga dëkk si dëkk boobu geddaay dëkk bi dem di uti beneen dëkk dem bi dem bi dem ba dugg si dëkk boobu noonu nga xam ne yow fi li nga jaar gaal nga dugg gaal goo xam ne ay bant lañ ko defaree bant jël moteur tegal ko muy daw pendant vingt quinze dix jours cinq jours six jours lii yëpp gaal yi koy def ci biir ndox mi. marine bu Espagne jàpp jàppale wala marine bu Italie ñëw jàppale ci biir géej gi nga kontaan di manifester wu loolu gàcc la ci suñu njiit yi loolu gàcc la ci ñi nga xam ne ñoo ñu jiite loolu gàcc la ci ku mel ni Mansour Faye loolu gàcc la ci journalistes yi ak rajo yi ak télévision yi nekk biir Sénégal ñu war a mën a dénoncer loolu ndax kat ki yor réew mi bi ñu koy jox réew mi cause yooyu yëpp dafa bokkoon si lu mu doon wax ne bu jëlee réew mi dana ko fi jëlee mais ñu nekk si deux mille vingt ba léegi gaal yi di départ Sénégal gis ngeen gaal gi dafa dafa dafa daw ba réer si biir ndox mi teer si si tefesu ndar gi foofu. lii gàcce la ci suñu njiit yi suñu journaliste yi suñu télé yi suñu rajo yi jàppuñu jàppal Sonko wàccal Sonko jàppal Sonko wàccal Sonko te li waroon a goon li waroon a doon discours bi dëgg mooy naka lañuy def ba ñii nii di jël di geddaay geddaayee sa dëkk gedd sa famille gedd sa lépp dugg si ndox nga xam ne gaal gi day doo ba mu yàgg xar ñëpp dee foofu man ndox mënu fa dara bu dëkk bu nekkoon ci dëkk bu jaar yoon bu jeexul it dana wàññeeku waaye gis nga lu ñuy wax lu nekk ba ba deux mille vingt quatre Macky Sall miy nekk fi ak nguuram continuer di ngeen gis ay paa yu am soixante ans soixante dix ans danañ jël gaal yi génn réew ndax senegal dafa métti senegal dafa metti te yow mi yor sa carte dem di woote ji dama bëgg a wax ak yow ñaari baat. gis nga boo seetaanee vidéo bi ñii ñi nga xam ne seen dee dafa fomm ñu dellu si waat teer si ndar nga seetaan vidéo bi ñi nga xam ne dañoo dem ba yegg marine bi jël si leen ñuy tàccu di kontaan naa di bàkku gedd sa dëkk geddaay sa dëkk dem dëkk jàmbur di bàkku musiba naaru laay yow mu yor sa carte dem ba si urne bi war a woote nga jël sa carte jox ko Macky Sall ne ko li nga doxal li ngay doxalee ak xale yi di jël géej gi di dee si géej gi neex na ma boo ko joxee Macky Sall loolu loolu la tekki nga jël sa carte nga jox ko Macky Sall carte bi dafa tekki ne yow Macky Sall président de la république yow bi may fal président de la république xale yi di dee si géej gi neex na ma te woot lu am solo li si doomu aadama nit ki danga ko war a wooteel si xam-xam si mu yóbbu réew mi si kanam mais wooteel nit ki mu mu yóbbu réew mi ginnaaw di rey ay doomam ay ndawam léegi ndaw ñi jeex Sénégal yéen rajo yeeg tele yi ngeen ne tekk seen débat yëpp jàppal Sonko wàccal ko seen débat yëpp Mansour fay boole li ma gën a métti seen débat boole woon si boole woo leen si du ñëpp nag am na ay journalistes yoo xam ne moom ay journaliste la waaw booy compter boo commencé un deux trois quatre cinq doo yeggali loolu lu garaaw si dëkk la war ngeen a defaraat seen toogaay de. parce que réew moo xam ne patron de presse yi ñu si ëpp si patron de presse yi état bi jënd na leen am seeni audio réew moo xam ne magistrat bi la war a àtte nga xamante ni bu ma amee problème si moom laa war a dem àtte muy partager ojo ay audio wu jàmbur magistrat laa leen wax nga xamante ni ñoom ñoo war a bu ñuy xeexee dañ naan ñu xeex warul leen da ngeen war a ñëw fii ñun ñu àtte leen ngeen dem mais warul leen doonantey bopp magistrat boobu noonu moo jël audio lu secret si doomu aadama partagé ko si réseaux sociaux internet adduna bi yëpp du ko xool boobu senegal la ñu nekk waaye gis ngeen tant que a ngi dem élection ñu leen di jox ay 1000 francs ki mille ngeen di woote di jël seen carte di ko jox Macky Sall waxuma la Macky Sall mais juróom fukki nit yi nga xamante ni bi Sénégal 1960 bi nga xam ne moom la tudd ba léegi benn groupe rek ñoo nekk yor réew mi ñu koy wooyee système bi ñuy def lu leen neex. balaa maa dee na ma toog si télé yi seetaan benn journaliste mu naan waa Sonko système bi la nekkoon mais nii ak nii ni système bi nekkul ne Sonko dafa seen dafa jàngee Sénégal jàng ami diplôme am liggéey di liggéey nekkul loolu mooy système bi bu leen ñu loo te ñi ngeen di waxal dofuñu système bi mooy li ngeen nekk xale yi di jël gaal gi di bët système bi mooy man ma nekk fii Amérique su ma xëyee taal sama oto dem liggéey yi du ma xalaat accident du xalaat agresseur du xalaat ñu jaay ma doole tëj ma si kaso du ma xalaat lenn lu nelaw ba yeewu sangu ba set dugg ci douche bi laaj ndox mu tàng wala ndox mu sedd mu jox ma ko ma génn taal sama oto dem xëyi ma feebar duma ma xalaat sax feebar li may lekk laay xalaat ne lekk gu neex gi may lekk wala lekk gu bari gi ndax du ma indil problème ba tax may ma ma jëlee ci feebar mais duma xalaat dara ngeen ne mukk du am si réew mañ dëkk yéen ngeen bañ ne du am loolu ba pare ngeen jël seen doom yëpp indi leen fii ñuy dund dund bu neex boobu nag ngeen xañ ko suñu doomu réew yi ñu koy gis si ñun xam ne génn di jël gaal gi di di di ñuy fekk si te ñun ñu ngi bëgg a dem ndax xam nañ li ñu daj fii ñu ngi bëgg a dem investir toog si réew ma ah ñoom parce que ñun ñu ngi dund dund bu baax waaye dafa am lu ñu manqué te yéen ñu ko xañ yéen juróom fukki nit yi nga xam ne 1960 ba léegi yéen a jëre Sénégal